tiis na lool ñëpp euh, wax nañ ko jaar nañ ci mais li tax mu gën a metti mooy soo xamoon li tax sa doom faatu wala sa proche faatu xëy na nga mën ko nangu wante quand il un désordre mu am désinformation te comprendre li tax lii yëpp am day gën a metti day gën a tar dafa mel ne da ñàkk ci Mali faro danga ñàkk pour rien du tout. lii am Sénégal ak conférence de presse su démb du gouvernement. dafa wone manque de responsabilité boo xam ni gouvernement bi am na ko état du Sénégal am na ko ndaxte kat quant on essaie d'expliquer lu garaaw lii am Sénégal par ay forces de ay forces occultes et en stigmatisant certaines régions des régions civiques des régions inciviques ci wax ji souvent su suñuy wax dañuy wax waxu banlieue fële lañ leen jàppee Pikine et cetera yenn saa ñu dem ba Ziguinchor di expliquer quand on veut ramener ce qui se passe au Sénégal ramener ko à cette proportion là je dis c'est manquer de responsabilité ñii xam histoire àdduna ñii xam histoire bi en France il y a près d'un siècle xam l'histoire de Dreyfus Alfred Dreyfus ak impact bi ak li fa am ni mu opposé église gouvernement militaire yi jaxase seen république pendant plus d'une décennie près d'une décennie et boobu ba léegi muy continuer di alimenter discussion yi ak problème yi wante ñoom nag dañu am benn chance chance bi ñu am mooy dañu gëstu comprendre li leen dal ñu sukkandiku ci pour jël ay grandes décisions et de grandes orientations cause yi fi am ni li fi am dafa dépasser son co ce que nous sommes en train de vivre dafa dépasser Yewwi Askan Wi ce que nous sommes en train de vivre est extrêmement profond il s'agit de faire la sociologie comprendre aspiration profonde du peuple sénégalais xam réellement xale yi lan la ñu bëgg wax soo jàppee waxu xale yi ak seen aspiration nga jàpp tëj leen di ay bandi la ñu je di bi nga doon wax mars deux mille vingt et un ni je vous ai compris ndekete yoo comprendront et si ça s'est calmé si les chefs religieux jeunesse bi ñëpp même les partis de l'opposition s'était calmé suite à cette phrase extrêmement importante du chef de l'État. Je vous ai compris, c'est parce que réellement on pensait qu'il allait pousser l'analyse, il allait pousser la compréhension xam dëgg le peuple sénégalais lu mu bëgg en termes d'emploi en termes d'équité en termes de justice on pensait qu'il avait compris ndekete yoo il n'a pas encore compris et ce qui me rend triste c'est quand j'entends encore le discours de quatre ministres d'un gouvernement qui enferme tout ce qui s'est passé les meurtres la frustration les doléances du peuple sénégalais di ko enfermer simplement en termes de force occulte Aristote benn philosophe moo doon wax ni lu am dafa am ñeent cause yoo xam ne moom nga ko war a wutal benn bi mooy cause matérielle cause matérielle bi qui dépasse complètement la personne son Sonko c'est la décision de justice Et j'enlève, je gomme le nom de Adji Sarr, je gomme le nom de Ousmane Sonko. C'est la décision de justice que tout le monde a trouvé tout simplement unique. yàlla def tamit ni on a eu sur un plateau télé deux ministres de la justice qui se sont succédés kenn ki la veille kenn ki le lendemain kenn ki nekk en service actuellement en exercice muy Madior Fall keneen ki c'est maître Doudou Ndoye mais da ngay gis parparloo bi da ngay gis ki ci bokk tey jii position yi mu am ak di jiital simplement xam-xam soi-disant xam-xam keneen ki am xam-xam comme moom mais jiital lu ñuy oowee sagesse wane téere bi yëpp ni loi yaa ngoog kii yaa ngoog wante tegee naa ko nale parce que am na loo xam ne moo ëpp li yëpp mooy la paix et on a les moyens politiques les moyens légaux d'arriver à cette paix là su dee bëgg nañ ko mais li maître Touré wax sànq nii wane na simplement l'attitude du ministre actuel ndekete yow moom mooy nax président parce que parrainage ba moom la woon lépp loo gis moom la woon dafa jiital loo xam ni mooy xam-xam te dama mës a wax ni xam-xam am na lu ko féetee kaw mooy hikma ak sagesse intelligence muus muuslu am na lu ko féete kaw mooy sagesse lii gën a jege dëgg lii gën a rafet lii gën a jub lii gën a jub mi ngi jege simplement ce recul là cette sagesse cet équilibre le juste milieu kon y a cette cause matérielle muy la décision de justice mais mu am beneen cause mooy la cause formelle l'essence même de la chose ça ne s'appelle pas Ousmane Sonko ça s'appelle une couche ou des couches de frustration depuis l'accès bi euh, mu accès des pouvoirs mooy les biens mal acquis nga jàpp ni vingt cinq la nga ciblé kenn nga jàpp Khalifa Sall tëj nga jàpp keneen tëj lépp loo xam ne jëloon nga ko am engagement defoo ko respecté woo ko la famille de l'autre président qui était combattu on ne comprenait pas bien on disait que la famille était trop présente dans les affaires de l'État nga ramener encore tout cela dans l'État et dans la gestion actuelle il y a un problème les Sénégalais se sont simplement soulevés par rapport à la malgouvernance. Quand on parle de BRT, je dis c'est bien beau. Quand on parle du stade, c'est bien beau. Mais l'intangible, l'immatériel, d'homme Adama, la denrée la plus rare aujourd'hui dans le monde entier, et surtout au Sénégal ici, c'est l'éthique et la morale. Nous devons simplement avec des stades, etc. Aujourd'hui, Macky Sall et le gouvernement ce que nous avons perdu et ce qu'ils ont euh, perdu, c'est réellement ça qui a amené ce que j'appelle la crise de confiance. Et démocratie, et la démonstration qu'ils en ont faite hier, c'est malheureux. C'est malheureux. Le socle de la démocratie, c'est la confiance aux institutions. te amul tul kenn koo xam ni wóolu nga parlement sénégalais amul kenn koo xam ni wóolu nga l'hyper présidentialisme au niveau de l'exécutif amul kenn koo xam ni gëm nga ni la justice est indépendante Et pour toutes ces raisons, le peuple sénégalais a perdu confiance. Et la confiance, une vertu élémentaire pour une vie sociale, une vertu élémentaire pour une démocratie. su amul dara munul samp dara munul taxaw et actuellement c'est la lecture que je voudrais qu'il fasse et s'il faisait une enquête aujourd'hui il se rendrait compte que le vrai problème le nœud du problème c'est le problème donc de la confiance avec l'État du Sénégal la confiance avec nos les le troisième point moom mooy cette cause motrice là mooy Ousmane Sonko may mun a wax na ko sànq c'est un maire d'une ville extrêmement importante Ziguinchor c'est un euh, euh, euh un acteur politique il avait pour cent et peut-être aujourd'hui suñu demoon élection mu am 51 ou 60 pour cent quel que soit le fait même s'il n'en avait que 5 pour cent il représente légitimement une partie du peuple sénégalais boo xam ni dañ ko wóolu am une vision teg ko ci ay mag la ay jigéen la ay sëriñ la je dis un chef de l'État n'a pas le droit au nom d'un état de droit au nom de la démocratie amoo tout simplement droit bañ a xool loolu bañ a gis ko et ça m'amène simplement mu ñëw rapidement ci le quatrième point mooy la cause finale ku xool ces jeunes ni ñuy solo ku xool l'architecture ku xool la musique ku xool xale yi ni ñuy porter leur africanité fonk seen sëriñ ku xool diaspora ce retour là vers le, le pays nga xam ni y a quelque chose un mouvement de fond extrêmement puissant qui ne s'appelle pas Ousmane Sonko mais qui s'appelle simplement une aspiration profonde du peuple et la réponse que j'attendais c'était un dialogue sincère en 2016 à travers un référendum quand le président Macky Sall demande aux Sénégalais de mettre parmi les points yoo xam ne waroon nañ ko voter un point important le statut du chef de l'opposition et j'étais malheureux en entendant le ministre dire non on n'a pas réglé cette question-là parce que l'opposition ne s'est pas entendue quelle honte parce que yeneen point yëpp yi la intéressé réglé nga ko mais point boobu su amoon nañ ma tontu est-ce que tey Sénégal jii dina nekk situation bi où on parlerait de dialogue parce que ce serait un agenda républicain des rencontres républicaines. On discuterait du pays. Toute l'opposition était derrière quelqu'un qui représenterait l'opposition. Nous, nous menons Wartan avec le chef de l'État. Euh, oui. Donc, nous...